bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmadou Bamba suñu sëriñ eh, di ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi lool ci wér di ñaanal sëriñ Abbas moom mi nga xam ne tey moo fi toog toogaayu sunu maam Thierno Ibra Fati yàlla yàggal ko fekk njaboot gi bu wér a wér ñu ñëw fi ngir ne ñëw goo xam ne ñaari anama koy indi ñëw foo xam ne fu nu war a ñëw la ndax fi leen bokk ñëw foo xam ne nii tamati ñun ci suñu jëmmi boppam li ñu ñor muy kenn ku dut Serigne Touba te ñi boo ne Serigne Touba ne Thierno kon loolu day ñaari tànk yoo xam ne nii mooy suñuy tànk tey ca xam ne it ne taasu ci barke di ñaan yàlla yàlla def ci réew mi jàmm di ñaanal yàlla tamati ah mboolem nit ku fi teg tànk suñ borom faj say aajo ca maam Thierno am na ko ndax liggéey la Serigne Touba ndax bu nee Thierno rek Serigne Touba ne ma maam Thierno. kon loolu la ko indi muy liggéey boo xam ne liggéey la ko Serigne Touba ba Serigne Touba jël yoon woowu dénk ko kon tey loolu mandarga la moo xam ne képp foo xam ne nii euh, ci réew mi fu nit mën a nekk war na ñëw di sàkku ci barke boobu nga xam ne moom la fi Serigne Touba def ca maam liggéey ko ci Cheikh Amadou Bamba. sëñ Modou yow ñaari casquette nga yor muy mhm. Mhm. waaw li ñu ciy dugal. Euh, mooy danoo nekk sëriñ sëriñ nag damay wax ne toujours day casquette bi nga xam ne moo gën a am importance ndax lu ne da ci dëgg ex ba mu de sëriñ kooku dama koy faral di wax lu bëree bëri waaye li ñu dugal ci politique du lenn lu gis nañ ne euh, dama am sama benn xarit boo xam ne nii nekkoon naag sëriñ Bara Dolly ci assemblée ca ñu kolorante muy sëñ Aliou Dia bu mbalaxe dafay faral di wax ne sëriñ bu ne bu duggee ci politique ca loolee nga xam ne moom la xalaatit moom ñun ñëpp loolu lañ xalaat danaa def waxtu wu ne bu gàmm jotee wala màggal nee na ah mu gis ne euh, toujours ndawu gouvernement bi day yónnee ministre wala benn directeur bu ñëwee ñu ne ko boo demee neel président boo demee neel nangam boo demee neel nangam bu ñëwaatee déwén même yónnent yooyu la ñu yónnent kon ñun ñu jàngat xalaat ne ay sëriñ lan waaye nag ay citoyen lan ñaareel bi it donte ku xam askan wi ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo gën a xam askan wi ndax bis bu set. ñi ngi ci màggal yi ñi ngi ci dëj yi ñi ngi ci gàmm yi ñi ngi jege askan bi ànd ak ñoom ci seeni soxla ak li nga xam ne mooy moom la àdduna baaxoo kon tey euh, war na yëkkati suñu tànk ci gannaaw yàlla bi nga xamee ne jaaral ñu fan ñu war a mën a jaarale en tant que doomi soxna waaye ñu wàññiku jëkk xam ne réew mii di Sénégal war nañ cee mën a dugal suñuy loxo ñun depuis 1988 lañ dugg ci politique jàngat ne réew mii war nañ cee dugal suñu loxo ci kaw mun gisee loo xam ne nii dëpp wut ak la nga xam ne askan wi war na koo mën a dundee ñu wax ko dëppoo it li nga xam ne eh, ca boo seetloo loolu liñ ciy wax lu bëree bëri bëri li ci nit ñi gis ñu koy biral liñ ciy wax ci suuf boo ko ëpp ndax it doomi soxna wala doomi daara bu jegee nitu nguur it jàpp na ne la koy war en tant que rolam mooy di ko wax fan la yoon wi nekk di ko wax lan lan la askan wi laaj di ko wax na tamati lan la askan wi bëgg lan leen yittewoo ci loolu bokk na ci ñun li tax ñu dugg ci wàllu politique di ci yëngatu pour gën a mën a liggéeyal askan wi pour gën a mën a wàññiku euh, jàppale euh, euh, taalibi yi loolu bokk na ci ñu dugg ndax bis bu set ñu jot appel ak fu mën di doon taalibi di am ay yitte ak i soxla yoo xam ne ci état la jëm ca loolu jege gën ca jege wala ñu ciy dugg bokk na ci la nga xam ne moo tax ñu ñu koy diis ñu mën koo lijjanti ca du tax du tee fan toog du fa jëg kon yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne euh, buñ ci duggee ganaaw yàlla ci politique loolu bokk na ca beneen ba ca des tamati ñu gis ne tamati toujours man damay wax ne euh, donte am réew euh, tey dañuy wax ci langue français ñi jàng français ñoo ko war a mën a yor waaye doomi daara yi it ñi jàng arab war nañ koo mën a yor jàpp naa ne buñ doxee tuuti ci kanam man damay gëm ne réew mii di Sénégal ku sant Mbàkke wala ku sant si wala ku sant neneen waa ay dara wala leneen war naa mën a yor réew mii di Sénégal euh, parce que lu ma gëm la ndax li tax mooy danga fekk ñu formé la ci wàlluk daara waaye du tee tamati euh, leneen la ñuy jàng tamati pour ñu man caa yu am réew loolu yaakaar naa du yàgg tuuti suñu doom wala suñu sët danga ci gis ñu oo xam ne dana mën a yor réew mi kon loolu ñun loolu lan ci jàngat ba tax ñu dugg ci politique. dugg ci politique leen euh, la gisee sëñ bi yow dugg ci politique ku falu nga ànd ak moom ku daanu nga bàyyi ko. daf doo war a wax dañu wax ne sëñ Basiru da ko daan wax euh, loolu jàpp naa ne ñun sëriñ si euh, ci jàngat ñun ci seen jëm boppam ñoo war a njëkk nangu sax dogal suñu borom ndax alaa tuuti mul ko manta saa beneen bi ci des tamati ñu jàngat nay tamati ñun sëriñ si euh, ci biir gëm gun gëm nga xam ne wax naa la ko léegi ci samay biir wax war na noo daw ci soxlay doomi aadama yi war na noo daw ci yittey doomi aadama yi ci kan ñan lañ koy daw ñoo yor wàllu nguur ñan ñooy do war a mën a saafara yi tey nit ñi ñu yor wàllu nguur mais li ëpp solo dama koy faral di wax ne politique damay dégg sama mbokk journaliste di wax ne baatu transhumant di ko garaawal man dama gëm ne euh, suba sax man damaa nekk mi transhumant xam nga lan mooy transhumant euh, euh, ci ni ma ko mën a farañ fàccee tey nit ki nga xam ne day am ci lu muy nekk même journaliste bi bu demee nekk ci benn organe bu demee ba gisatu ci boppam lu mu ci def xanaa du fa toogaat naan organe bi nangam ak nangam ah leneen la ca des tamati même diine ji da nga gis ni tey nekk ci diine ji bu subaa mu nekk ci geneen diine da gis nit ki tamati nekk yor euh, euh, soxna ci këram wala mu doon borom kër bu ëllëgee tamati ñu dem ba mënuñoo dégg ku ne da ngay jëm beneen côté kon jàpp naa ne moom gëm moom kenn lañ koy def ñun wala boog man muy Serigne tubaa leneen lu man di doon dañuy ànd ñu ànd ma man caa gis man sama bopp ci bu ma ci gisee sama bopp gis naa ci ñëw euh, euh, taalibe bi gis naa ci réew mi bu ma demee ba noppi ko caa gis moom koo mën a doon moom mën naa la bàyyi donte damaa nekk ci pouvoir bi wala leneen loolu nag nit ñi dañuy jàngat ne waxtu ne dañuy ànd ak pouvoir bu ci jegee ñu àndaat ak pouvoir ca dëgg-dëgg ak même gun àndutoo moom it ñun li ñu diina digal ak gëm suñu borom war naa tax ne nguur moom ku ko yàlla jox tamati dañ la koy euh, wormaal dañ la koy téye ndax yàlla moo koy jox ku ko neex kon it jàpp na ne yitte doomi aadama it ci ñi yor nguur ci leen mën a jaar ba am ba ba mu koo saafara euh, ndax bu nekkoon ci leneen xëy na duñ ko man kon loolu it bokk na ci suñuy gis-gis ci lu mel noonu. loolu ak kii ngay dem ba xaabaabal mu fekkoon baat boobu jub na. Mhm. ndax ngay dem ba àgg ci ay nga tuddee nga doom kenn ci président wala nangam ak wala yooyu. Mhm. yooyu bu noo koy lool loolu mooy. xam nga loolu njëkkut ci man ndax fii ci daaru am na fi koo xam ne tuddee woon na soxna euh, Abdou Diouf doom. ah xam nga sëñ bi eh, ñaari mbir day am personne eh, humaine doomu aadama léeg-léeg nga seq ak nit ki doon tëb journaliste la ci seen i relation ci guddi yi ngeen di seqee ngeen di dox ba yàgg ci relation yooyu nga am fu ngeen egg foo xam ne nii loolu la nga yëg rek en tant que doomu aadama pour wan ko ne ko lii cër la boo xam ne nii am naa ko ci yow loolu moom nit ci boppam ak koo mën a doon doon te doo président léeg-léeg nga seq nit ba egg ca kon loolu jàpp naa ne. loolu moom vie privée la lu nit di dund la diggante nit bokkut ak dara politique ndax léeg-léeg lu mel noonu am nga def ba yàgg mënutoo ànd ak nit ki da ngeen di tàggoo la ngeen seqoon nag loola ba loola am loolu moom man la may jàngat li fekk nit kenn topp ma di ko topp waaye damay am yëg-yëg ba ma koy def dafa am fu ma eggoon ak moom waaye li wér ci woo daal mooy nit ay ñiy politique ay nit lan ñun ñii sëriñ si di politique euh, ci wàllu politique ay nit lan da seq ak nit ki loo xam ne nii mooy dem ba waral lu mel noonu di am loolu nag yëg-yëgu doomu aadama la nit ñëpp lan ñoo ko am yëg-yëg waaye doonu dara ca lan jàpp parce que tey mën na noo ànd ak président tuddee ko doom suba bu adu tey balay euh, ñaari weer ñetti na noo a ànd politiquement waaye wàllu xarit ga ko war a tàggoo da ngaa a mën a ñaawoo ak moom man jàngatuma ko noonu lu mel noonu ngeen bàyyi xel ne li nit di wax ci kaw wàllu politique yi tamati loolu politique la tey bu ma jegee wax dara ci Ablaye Wade waxuma Ablaye Wade ma nekk sama kóllëre wala ma nekk sama kóllëre bàyyi mm. damay wax Ablaye Wade ma nekk chef de opposant secrétaire général du PDS foofu laay waxee am na ñoo xam ne mën nañ koo bañ déggee nu mel noonu waaye man mi wax fi may waxe foofu laay waxee waaye tey bu ku mel ne tey président Ablaye Wade tey bu demee ba di ci wax tey waxatuñu Ablaye wadd en tant que waajur wala kóllëre waajur wala suñ kóllëre ñun. dañ cey wax en tant que Ablaye Wade secrétaire général du PDS en tant que Ablaye wadd chef de parti foofu nag ñu bari duñ déggee yu mel noonu kon ñaare nit ñi di déggee. Euh, ci ni nit ki waxee lu am solo la wax li mu am solo solo dégg moo ko ëpp solo. Euh, sëñ bi yow seefu relise nga ñu xamoon sëriñ ci benn problème mooy jàng ak jàngale nga gis njàngale mi boobu ba léegi mu ngi yàqu donte du njàngaleem diine sax waaye boobu ba léegi dégguñu ci sa benn kàddu. déet dafa mel ne sëriñ bi yaakaar naa ne boo gëstu tuuti euh, matugu sax une semaine moo ci wàllug boo duggee ci wal fajri tey mën naa ko tudd ak yeneen logo ci YouTube bi. da nga gis ne euh, bu dut alxames di vendredi. def naa benn point de presse maag kilifa yi diine yi nekk ci Sénégal yëpp ci famille religieuse yëpp kenn ku ci ne am na ca ku ca bokk. ñu toog ci benn euh, euh, local ci dakaar def benn point de presse joxoñ même président mi ma àndal dama ko joxoñ ne mi ngi def waaye na gën a yokk loxoom joxoñ jàngalekat yi. wan ne jàngalekat yi ñoom ci seen jëmmi boppam tey kay doon président ka doon directeur rek ka doon ministre rek ku mën di doon tey ba ci ñun ñi nga xam ne sax ay ay ay ay tey boo demee bay jàng professeur ya wala e, e, e, ñuy enseignant yi tey ñoo tax nga mel noonu ma delluwaat enseignant yi tamati ci ñoom kenn ku ci ne am nga ak njaboot goo yilif ci kër ga ce njaboot googu ëllëg ñoo war a nekk njaakaaru réew mi kon ñoom it nan bàyyi xel loolu wëññiku delluwaat ci élèves yi war na élèves yooyu di jàng ëllëg ñoo war a nekk yaakaaru réew mi kon ñoom it nañ leen ñaan ñoom ñett ñëpp muy président muy enseignant bi muy élève bi ñoom ñëpp nan ànd trouver terrain entendre mën a delluwaat ci classe yaakaar naa bi ma ko waxee mutagut une semaine ci loolu saafara kon loolu moom jàpp naa ne boo gëstoo tuuti mutagut une semaine même yére bi ma soloon mbaxana bi ma soloon sax su may guma ko. kon day wane ne yéex ah. ah, du yéex xam nga yéex moom li ci am solo mooy baat bu barkeel a àddunaa ci daal suñu borom def na demagut ay bis saafara na man jàpp naa ne kon euh, mën naa am kaddu gu barkeel la wala bokk na ci kaddu yu barkeel ndax biñ ko méttal loo matugut ay bis suñu borom saafara lu mel noonu kon yéex ga ak euh, jëkk la am solo daal mooy wax nan. baat bi jiitu nga mooy dégguñu la ca ca dégg nañ ñu ca loolu mooy la am solo ñun moom lépp loo xam ne am na ci réew mi lépp lu ñu war a wax rek bu jotee danañ ko wax ah di yaakaar naa boobu it loo xam ne nii tey luy défendre diine la ndax am na gone yoo xam ne fii ci dëkk bi génn nañ def benn sortie dal ci kilifa diine yi dal ci Sénégal yi tuddee Sénégal yi laas baatub laas ci français yéen ñi jàng tubaab xam ngeen ko wax sëriñ si ne ay corrompu lañ ay ay ay complice lañ lool it yaakaar naa ne baat boobee may wax ci enseignants yi di ko wax ci ñooñee point de presse boobu bi ma ko defee ma tudd ay biso loola nag. bokkut ak dara politique lépp luy défendre diine di défendre réew mi di défendre lu di doxal réew mi moom bu ànd ak président ba bu buñ àndul président bu jotee dañ ko war a wax dañ koy wax insha allahu rabbi boo yokkut tamati gàllankoor la kon man sama li may soweetit mu des ci biir parti bi ba tax na euh, loolu yaakaar naa moom it wax naa ko mu tugut ay bis moom it euh, la may ñaan moom it mu des ci parti bi continuer di liggéey ci parti bi ah loolu lañ koy ñaanal parce que ku jàmbaar la ci parti bi liggéey na ci parti bi kon mu des ci parti bi loolu lañ koy ñaanal waaye ba tey ñu nit dañoo nekk ci yeneen euh, may ma may ma xam nga jiite da nga am ñaari question yu bokkut question département bi ak question démissionné na ci parti bi moom dañu bàyyi na département bi delluwaat tey ne démissionné na démissionné googu nag lañ ko ñaanalut léegi nag moom ñu ci di ci wax ndax wax na ci lam cay wax wax nañ ca lañ ca war a wax waaye nag mu bàyyi parti bi moom ñun ñaanaluñu ko sowetaluñu ko parce que tamati wàññit lay ju lay jur ndax mbir mu mën di doon ku ca bokk ku ne bu bàyyee ah ca am ñu euh, euh, donte am na ñu ko topp du euh, wàññ lay doon kon ñaanuñu parti boobu di wàññi ko loolu nag bokkut ak wàllu département bi fii ñu toll ci département bi bokk na ci li ñu liggéey pour ñun ñëpp ñu unité nekk benn unité nag nekk benn boo koy wootee. baatu jàmm ngay wuyoo ca fii ñu toll ñu ci euh, euh, defante ak waxante fan la ñu toll muy ànd nekk euh, benn politique dafa am ay ay ay ay bis ak i waxtu am na ay bis ak waxtu lii la laaj waaye am na ay bis ak i waxtu dafa am lu mu laaj fii ñu toll nag fas bi ñu toll mooy ànd unité nekk benn fas yéene indi ay nit yokk leen ci biir parti bi ñu liggéey ñoom it waa parti bi ñu ñu bàyyi ñaari es nan bàyyi siis nan bàyyi soxot ñaari es yi moom li may ñaan. bu buñ bëggee gagné dañ koy bàyyi six soxot ñaari es yi nag buñ ko bàyyee ubbi bunt yi mën na noo jàpp ne 2019 président day gagné insha allahu rabbi. waaw xam sëñ Moussa Cissé démission bi daa gis sondage bi ci biir askan wi fu mu jaar rek ñuy yuxoo yeeg ak kii yeeg. daanaka euh, xam nga bëgguma di dugg ci ba ci xóot. parce que mbirum boppam la. waaye du lu jëm ci loolu. mbir la yoo xam ne ni da ko am ak parti bi ay mbir yoo xam ne nii ca kaw la. mu seq ko ak ñoom loolu nag digganteem ak ñoom la bëgguma ci du ci sori waaye du ay sondage du ay dafa gis ne réew mi nangam réew mi alhamdulilahi rabbil alamin bis bu set nga gis ñu dugg ci biir APR du bis bu tamati nga gis tamati président mi ngi continuer laa mi ngi liggéey ñi ngi am ñun amu ñàkk ñu yaakaar ci du gagné danoo am yaakaar ne danoo war a gagné premier tour kon moom foofu moom jàngatu ne looloo laa tax lama jàpp daal am na ay mbir yoo xam ne moom la na ak ñam ko seqal ca kaw ñu ngi ñaan yàlla tamit loolu yàlla def ci jàmm loolu la ñuy ñaan loolu la ñuy souhaité ah, ah waaye doonul mbir moo xam ne ay sondage la ak yu jëm ji wàllu ko nit ñi. benn laa ci mm-hmm. euh, sëñ bi yow en tant que kilifa diine ñu gis la. bu yàggul nga def euh, benn conférence de presse di nu xamal président Idriss Seck di ko waxee ci anam boo xam ne bu nu ko waxoon ci yow. ñun mën na noo jëli yet sax dal ci kaw kooku nga koy wax en tant que kilifa nga koy waxee noonu. xam nga dafa am loo xam ne il faut ñu leeral ko ñun sëriñ lañ dañuy def politique lépp lu ñu mën a waxalit ñun ñoo préféré sa euh, tànn di def politique tànn gani tànn di def politique it dañ ciy jël ñaar teg dañ ciy jël benn ñiy yëkkati ay kàddu du ko wax ñu jël beneen côté ñu jëkk di defaral nit ñi ak di jàppale nit ñi pour taalibe yi seen i yitte ak seen i soxla kon dañuy jël bu baax bi ah muñee ko bu bon bee waaye ci politique it ku mel ni Idriss jaar gim jaar Touba jaar ceeg sama waajur man jaar ceek ceeg Cheikh Mouhamadou Mourta jaar ceeg Serigne Saliou muy lu ma fekke mu jaar ci ak eh, ak jeneen jëmm ci biir Touba loo xam ne nii ñëpp xam ne ne deret tuuru na ca ah yooyu yëpp mbir la yoo xam ne nii eh, eh, doonu lu ñu neex ci politiquement arme la boo xam ne buñ ko war a ko utiliser pour pour pour pour pour suñ suñ loolu la du leneen mais waaw waaw ah, mais politique loolu la mbir mu ne mu tey eh, eh, eh, yow mi opposant da ngay fexe nu ma jege ci sees bi loo jël xalab ma ko ma wàcc ci sees bi man damay fexe ba doo egsi ci sees bi voilà c'est tout yi nga gis barki dem bu président indi ko fii ndax mun la ci joxoon am nga tool yoo ko yóbbu ah sëriñ bu amul tool di yaakaar naa gisoo ko man am naa du yëli ay tool am naa dolli tool sëriñ bu amul tool mi ngi mel ne pël bu amuti nag Hmm? ca jàpp naa ne suñ mbokk pël yi koo ci gis xanaa am na benn wala ñaari nag ab sëriñ jàpp naa ne koo ci gis war naa am tool man de am naa ay tool doli am naa ko tool yu ñu wax doyoli fu ci nekk am naa fa tool kon ma waa xam nga alal sa waajur koy sa alal la wasalaamaaleykum <laughs> wa rahmatullahi taala wa barakatu